biir mbooloo yi teg leen ci suuf arash ñuy serlu ci keru arash ba suñu borom di régler lu muy régler boole na ci shabun nashaa fi ibadati rabbihi jeune boo xam ni jeunesse sam yépp mu ngi ko ci jaamu ki nga xam ni mooy boromam mbokk yi yaakaar naa li weesu day wane ni doomu jeune bi dafa war a jariñoo jeunesse sam daf ko war a exploiter exploitation bu rafet aider doomu aadama bi wala aider ndaw li nga xamné ne moy jeune bi mu mëna a jeunesse am mo waral alxuraan tudde ay exemple yu bare bare ci ay ndaw yo xamné ni seen jeunesse yëpp dañ ka passé ci top seen borom ak wo jami yi jëmaleen ci ki bind ak sacrifice def ay sacrifice yu bari ngir seen diiné alxuraan tudde na ay exemple yu bari ci ay ndaw alxuraan jox nañu exemple jeune bi nga xam ni daf doon révolté ci ay caaxaan manu ko wan a accepté jeune bi nga xam ni dafa taxawoon ci ak njàmbaar muy woo nit ñi di leen jëmale di leen jëme ci ki nga xam ne moo leen indi woon ci àddina taxaw di woo baayam ak ay mbokkam yépp ci ñuy sellal jaamu ji ki nga xam ci ki nga xam ne mooy yàlla suñu borom te muy ibrahimul xalil ibrahim yàlla dafa wax ci alquran ne walaqad aataynaa ibrahima rushdahu wa kunna bihi aalimin is qaala li abihi wa qawmihi ma hadihi tamaasilu allati antum laha aakifuun yàlla mu ne jox bàyyi leen xel xale bii di ibrahim bis bu mu taxawee di wax ak baayam ak ay mbokkam nan leen mais statut yi nga xam ne yéen a leen yett ba pare taxaw di leen jaamu pour lan la qaalu wajadnaa abaana laha aabidin ñu nekk ah ñun day dañoo fekk suñu ay baay ñu di leen jaam ñun taw ñu ñëw di jaar fi suñuy baay jaaroon qaala laqad kuntum antum wa abaaukum fi dalalin mubin mu ne leen yéen ak seen baay yooyu yëpp ci ak réer gu metti ngeen nekk qaalu ajitana bil xaqi am anta min al laaibin ñu nekk yow da nga sérieux wala da ngay fo qaala ba rabbukum rabbu samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala dalikum min ashahidin mu ne leen kii seen borom tamata jaam mooy ki leen bind bind seen baay yooyu bind asamaan yi bind suuf si yamul ci loolu mu ne leen tallaahi la akidanna asnaamakum baada an tuwallu mudbirin yéena leen yett taxaw di leen jaamu mais ñoom ñëpp dinaa leen fexeel alxuraan nee na fa jaalahum juzazan illa kabiran lahum laallahum ilayhi yarjiun bi gaa yi demee mu màbb xërëm yépp ba ñu nekk pënd mu jël semmiñ bi wekk ko ci xërëm bu mag bi ngir am lu mu leen jàngal bi ñu ñëwee gis li xew qaalu man faala hada bi alihatina innahu la min alzalimin mais kan moo def lii suñu yàlla yi kii daal tooñkat dëgg la lan mooy preuve ci ne Ibrahim bi muy taxaw taxawaay boobu xale bu góor la sa at la yoroon preuve bi mooy qaalu samiana fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim dañu wax ni doon nañ dégg benn xale bu leen doon tudd ibrahim lañ koy woowee bi faatu bihi ala ayuni naas laallahum yashhaduun ñu ne nañ nañ ko indi biñ ñëwee ci lañ ko laaj ne kan moo def nii sunu yàlla yi mu ne leen xërëm bu mag bi moo ko def laaj leen ko ñu ne ka xam nga ni ñii mënuñoo wax nuñ leen di laajee mu ne leen naka ngeen di jaamoo loo xam ni wax sax manuka ba bari ngeen xaar ci mom mu jëriñ leen wala mu lor leen ci lañ ko fexele fexel gën ko fexel ba duggal ko ci sawara ga bëggoon ko lak suñu borom wax wax jam wax yaanaaru kuni bardan wa salaman ala ibrahim aradu bihi kaydan fajalnahumul akhsarin lolu ibrahim ba muy taxaw taxaway bobu xale la won alquran dox nañu exemple jeune bo xamni dafa paré won pour sacrifier bopam sacrifier ak dundam ngir toppal li nga xam ne mooy ndigalu boroomam tey muy Ismaayil doomu Seyduna Ibrahim yéen ñëpp xam ngeen ni Ibrahim ci ak mat la ko suñu borom may Ismaayil boobu découragé na ci am doom te nitu yàlla boo gis li mu gën a bëgg ci àddina surtout buy génn àddina mu bàyyi fi njaboot goo xam ne dinañ continuer mission bi nga xam ne ci la nekkoon Ibrahim bim tolo ci âge bobu suñu borom may ko dom muy dom ju góor mu bëgg ko mbëggeel gu spécial lu xalé bi di gëna mag màgg mbëggeelam ci xalé bi di gëna yok alquran neena fa balaga maahu saaya manam bi nattu bi may bëgg wax di exi bobu xalé bi agana na fi xalé di ag ci dëgër ak am doole ba mëna jappalé bayam ci activité yi fofu la tollu won suñu borom am lum ka wax wan ka ci ay nelaw ne ka rayal xale bi te yonent lu mu gënta wax yu la mu jaaxle trop li jaaxal mooy xale bi cofeel gi mu am ci moom yéeme na mais li mu bëgg li ma suñu borom digal même su ma pare woon pour def ka lan mooy doon réaction moom xale bi ñu ànd ci àll xale bi gis kanamu baay bi triste mu nekk bàyyi lan moo xew sa kanam dafa ñagas mu nekk yaa bu nay ya ni mu ko woowee appellation boobu dafay wane cofeel gi mu am ci moom nekk yaa bu nay ya inni ara fil manaami anni asbaxuk dama tëdd di nelaw suñu boroom wan ma ni ma rey la hmm. te xale bi xam na ni nelaw yonent euh, géntu yonent wax yu la mu nekk suñu borom daf maa wan ci ay nelaw ne naa la rey ismail hésité wul sax pour tontu ka ne ka abati bàyyi sama noonu la ko wooye ifaal ma tukmar defal li ñu la digal wax ko sax defal li ñu la digal ci man parce que ni moom amul importance moo tudul tuddul boppam sax dana ko bàyyi defal li la digal bu fekkee maa la jaaxal sa tajiduni insha allahu min assabirin boo ci egsee ci kàttanu yàlla suñu borom lan moo tax baatu insha allah parce que nekkul jeunesse nekkul jeune buy tiitaru di wane njàmbaar ak yu demee noonu mu nekk ci kàttanu yàlla suñu borom bu dee maa la jaaxal dinaa ko muñ muñ bu rafet alxuraan nee na falamma aslama mooy falamma aslamal waalidu waladuhu wa aslamal waladu unuqahu bi nga xamante ni baay bi pare na pour joxe doom ji doom doom ji pare na pour joxe boppam wa tallahu ca jabin mu tëral ko teg paaka bi ci loos wi hésité pour def li yàlla digle naa day naahu an yaa ibrahim suñu borom nee na ca fa ma ne laa ko woo ne ko ibrahim mu ne ma la bayk ma ne ko xat saddaqta ruya dama la doon testé mais réussir nga ko mais dama doon testé xale bi it mais réussir nag la moo tax euh, alxuraan di ñu tuddal exemple Ismaïl pour wan la yow jeune bi ne am na jeune yu mel ni yow yoo xam ne pare woon nañ pour joxe seen dund pare pour joxe seen bopp ngir jëfe li nga xam ne mooy seen ndigalu boroom alxuraan tuddal nañu exemple jeune bi nga xam ne dafa jaar ci natt yu metti yi muy Seydunaa Yuusuf dundam yépp ay nattu la xale la boo xam ni jotula dund cofeel gi war a jaar diggante baay ak doom ndax ci ak ndawam lañ ko texale ak way juróom te way juram ko amoon cofeel la woon ci moom ci ak ndawam ñu jël ko dugal ko ci ab teen ci ab xale bu ndaw jële ko ci teen yóbbu ko ci ab marché di ko jaay ak a jënd comme marchandise lépp mu di ko muñ muñ bu rafet suñu boroom dogal buuru dëkk bi jënd ko mu war a doon li nga xam ne xëj na moo war a jeexal état bu nattu yi ndekete ci la nattu bi di doog a tàmbali parce que ci biir kër googu la ko suñu borom di nattoo loo xam ni néew na jeune bu ko yàlla dul nattoo mais néew na jeune bu koy résister muy plaisir sexuel moo doon daw di ko ut si muy fitna fitness bànneex moom amu ci woon soxla mais plaisir bi moo dawoon di bien que je yu bari ñooy daw di ko uti moom ko doon ut si moom Seydunaa Yuusuf élément élément daf ko waroon aider pour mu accepter liñ offrir bu fekkoon ku oyof parce que jeune le bi muy dund loolu xale bu góor la Yuusuf am na doole ba pare rafet na ba pare dafa tumuranke maanaam dëkk bi mu ne du ab dëkkam sa turandoo yàlla ngi nga jël jikkoom ya dëkk bi mu ne dafa tumuraanke ku ka fa xam walla ku xam ku ka xam sax newu fa maanaam ku Yuusuf doon bàyyi xel war kaa rus newul ci dëkk bi ba pare amul soxna célibataire mbaa hmm. du turandoo gi daa yàqu ah ah amoo soxna aussi yow li nga nuroog Yuusuf bari naa ok soxna si nga xam ni moo koy woo ci boppam c'est important Yuusuf fi mu ne dafa tumuranke ku ko xam ne wu xale bu góor la bu am doole rafet na macha allahu ba pare soxna si ko soxla du jigéenu mbedd de jigéen ji gën a taaru ci dëkk bi ba buur bi takk ko kooku moo soxla Yuusuf am na taar moom soxna si am na personnalité ba pare moom moom xale bi xale bi ab jaamam la moom soxna si mooy sangam ba pare nekkuloon fitna bu jaar romba fitna la bu dëkk Yuusuf moom lay xëyandool di gontandoog moom moom lay yendool di fanaanoog moom ndaw si tekk choc ba pare ndaw si moo ko woo ci boppam moom Yuusuf soxlawul ndaw si souvent bu soxlaa gur da koy junj nekk intéressé nga ma góor gi day àggali soxna si nag daf ko defal déclaration ne que xëytalak mm-hmm. mooy offrir sama mais Youssouf refusé loolu lépp ngir xam gi mu xam lu am solo li imam Busayri wax ci burda bi ma doon jàng léegi ci diggante doomu aadama bakkenam instant yi ngay am yenn sentiment yi yenn desire yi am lu sa xol di laaj looy bëgg imam Busayri da cee wax lu am solo dafa ne bakken boobu waraiha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 لله أن أعلم على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها c'est important imam Busayri nee na sa bakkan say bànneex waraayiha dee ko sóoraale dee ko bàyyi xel wahiya fil amali saa imatun dafay décrire bakkanu doomu aadama mel ni xar wala gàtt bu nekk ci àll di fóon ñax mu neex mu mu kàmpe day fóon di avancer sa bakke noonu lay mel ci di wër ay bànneex lu lu mu neex lu ka neex lu mu jël mu ne wa in hiya stahlatil mar'a sa bakken bu demee ba fóon génn gàncax ba jàppane gàncax gi neex na fii su ma fi campé damay am lu bari bu sayri nee na falaa tusimi bul campé de Lutah. كم حسنت لذة للمرء قاتلاتا من حيث لم يدري أن السم في دسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير parce que ba bakkenu doomu aadama dafa bari lu muy taaral lu muy taaral plaisir boo xam ni day reye hmm. dafa bari lu mu koy taaral doomu aadama bi doomu aadama bi songa plaisir boobu sans pour autant mu xam ni am na summa fi dasami lem gi ndekete poison la poison la def loolu la Seydunaa Yuusuf xamoon moo tax bi ndaw si taxawee ci kanamam nekk xëy talak ginnaaw bi mu bi boroom këram génnee mu tëj bunte yëpp nekk xëy talak offrir naa la sama bopp réponse Yuusuf c'est important qaala maazallah dafa ni ko yàlla na suñu borom musal ma ci ma wuyu la ci li may woo innahu rabbi nekk ki ma jaaxal mooy rabbi mu fassiru yi dañ uute ñii nañ ne rabbi yàlla la ci jublu ñi ëpp ci ñoom nee nañ rabbi sama sang bi nga xam ne moo ma jënd la ci jublu muy sa borom kër li am solo mooy ñaar ñëpp la Yuusuf doon sóoraale mais alxuraan nee na yonente yàlla Yuusuf bi mu àggee ci étape boobu dafa ne ni maazallah yàlla na suñu borom musal ma ci ma wuyu la ci li may woo innahu rabbi parce que moom sama borom moom ki ma moom ahsana maswaaya nga ju ne defal na ma moo xam yàlla mi la bind la moo xam borom këru ndaw si nekk innahu laa yuflihu zaalimuun li may woo su ma la ci wuyoo dinaa tooñ te kuy tooñ doo mës mucc ndaw si xam ni manul convaincre Yuusuf ci la daw song ka Yuusuf daw jiitu ko ci bunt bi jërëjëf ba max ba max bunt bi bi bi bunt bi tijjeekoo ñu yam jërëjëf ci borom këram ñu yam ci borom këru ndaw si xam nga ndaw si lu mu def est-ce que mënuñoo bu amee lu ñuy séddale ñu téye ko parce que c'est important li may wax nii ah dama ëpp solo lekk gi ah damay tënk waxtaan wi après bu amee lu ñuy séddale ñu séddale ko bi ñu ubbee bunte bi yam ci borom kër gi ndaw si nekk gis nga ak teraanga bi ñu ko defal lépp mais lii la lay faye bàyyi ba nga génn kër gi mu di ma sàkku Yusuf nekk sàkkuwu mag ndaw si ne que moom a sàpp benn sage boo xam ne mbokk ndaw sii la moom moo régler situation bi mm-hmm. moo ne da ngeen ni xool yére Yuusuf ci ban côté la froissé bu dee dafa froissé ci kanam ngeen xam ne moo doon sàkku ndaw si muy bañ bu dee ci ginnaaw la froissé ngeen xam ne da doon daw ñu koy téye alxuraan ne bi ñu xoolee yéreem gis mu froissé ci ginnaaw ñu xam ne pexe jigéen la mm. te seeni pexe lu rëy la léegi nag xibaar bi siiw ci dëkk bi jigéen ñi di ka waxtaane borom personalité bi borom taar bi jabaru buur bi jaamam la doon sàkku kàddu ki dérangé ka mais moom xam na ni ki muy sàkku ñoom dañ koo tegul bët mais buñ ko gisoon moom lim ci man ci résistance sax ñoom duñ ko ci man ci la leen defee lay invitation bu spéciale boobu jox leen paaka yi ñu doon daggee fruit yi ba Yuusuf génn ci ñoom ñuy trancé seen ay loxo sans pour autant ñoo xam ne ñu ngi dagg seen bopp foofu nag comme ndaw si neexal na Yuusuf ba sonn mënu ko am mu utiliser beneen stratégie te mooy mu tiital ko mu ne leen fa zalikunna alladi lumtunna nii fii ana raawattuhu an nafsihi yéen li ngeen may yeddee ci moom man ci sama bopp maa ko doon sàkku moom musul am ci man soxla waaye la in lam yafaal ma amuruhu li ma koy digal bu ko deful layus jannan na dinañ ko tëj ci prison bi wala yakun nan min a saaxirin te dina bokk ci ñu gën a torox ci dëkk bi oh foofu nag Yuusuf nekk diggante ñaari mbir diggante ñaari nattu diggante nattub àddina ak diggante nattub alaaxira ndaw si mu ngi koy woo ci boppam di ko offrir boppam neexal naka mënu kaa am mu ne li ma koy woo bu ma ci wuyuwul dinañ ko tëj te dinañ ko toroxal Yuusuf nekk diggante ñaari mbir ñu nattu ko ci diineem te mooy mu sëy ak ndaw si bokk ci ñi saay saay wala ñu nattu ko ci àddinaam te mooy mu bañ ñu tëj ko ci prison bi toroxal ko mu wax ak boroomam ne ko rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi mu ne yàlla prison moo ma gënal ma leen ci liñ may woo sama benn professeur mos lan moo tax mu utiliser pluriel foofu moo tax euh, euh, prison moom a gënal mu wuy leen ci li ñu may woo mu ne parce que léegi nekkatul problème mu Yuusuf ak ndaw si kese jigéen ñi dëkk bi ñu ko gisee ba gis amatuñ jàmm ñoom mais Youssouf ne prison moom ma gënal ma wuyu leen ci liñ may woo ne yàlla wa illaa tasrif anni kaydahunna te bis boo ma fegalul seen pexe asbu ilayhinna dinaa daanu ci seen ay piège wala akuna min al-jaahiliin te loolu su ma ko defee dinaa bokk ci ñi gën a réer ci say jaam naka noonu la alxuraan joxe exemple jeune bu sella bi jeune bu set bi boroom jikko yu tedd yi yaxyaa doomu zakariya mi yàlla wax ci moom ni wa aataynaahul xukma sabiya ba ma koy jox sagesse ak xam-xam xale bu tuuti la woon waxanaanan min la dunnaa mu am xol bi fees dell ak yërmande ba mu mel ni sax ci sama yërmande laa jël jox ko wa zakatan wa kaana taqiya mu nekkoon ku sell ku ragal yàlla wa barran bi waalidayhi ku baax ci ay waajuram walam yakun jabbaaran asiya nekkul woon mooykatu yàlla nekkul woon ku rëy exemple boobu aussi alxuraan tuddal nañu ko ci ci ci ay jeunes mais naka noonu aussi la ñu alxuraan tuddalee exemple jeunes yi nga xam ne groupe de jeunes yi nga xam ne dañoo téye woon dëgg pare woon aussi pour mën a jà jànkonteel ak bépp jafe-jafe ngir bañ a teggi seen tànk ci dëkk te muy asxaabul kahf yàlla wax ni innahum fitya ba mu lay ni melal dafa ni ay xale lañu amanu bi rabbihim naa zidnahum hudan yoo xam ne dañoo gëmoon seen boroom ma dolli leen ak njub wa rabatna ala qulubihim isqaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan parce que buur ba fa nekkoon moo leen bëggoon a imposer jaamu leneen lu dul diine ji fi yonente yàlla Isa indi woon mu ne leen ñoom ñu dajaloo ne ñun ki ñu moom mooy yàlla mi bind asamaan ak suuf te doomu aadama mënul fexe ba nu jaamu keneen ku dul moom laqad qulna idan shatatan donc exemple yi alquran tudd dafay tegtale ni missionnaire yi ñoom ñëpp ndekete ay ndaw lañu woon ki nga xam ne nag moom lañu alquran junj yàlla joxañ ñu ko ne leen ne ñu mooy seen mooy seen royukaay mooy xayru xalqilaahi ki gën ci mboolem luy mindeef ibnu abdillahi kookaa di yaaram ba yéen ñëpp xam ngeen na ni moom avant muy gëne àddina la ko suñu borom dugal ci li ñu tuddee ar riaya rabbaniya yonente bi yàlla ko doon protégel boppam protection boobu avant muy gane àddina la ko yàlla tàmbali xasiida bu am solo bi sëriñ raan doon jàng bu sayri yi mu ci wax naan kaan lam tësal fii dama iril kaw ni tuxtaaru lakal ummahaatu wal aba محمد دبل فين مقدره لم تزل في دمائر الكون تختار لك الأمهات والأباء إيه، ومدار الوجود منك كريم من كريم أباؤهم كرما mu nekk ba suñu borom bindee univers bi ba léegi dañuloo di doon koo xam ne dañ lay tànnal ay baay ak yaay yonent bi ak ruuxam depuis suñu seyduna aadam ba soxna amina mi ko jur suñu borom da doon sélectionné ci yan jëmmalay jaar bi mu ñëwee ci àddina doon ab xale it alifa nuska wal ibadata wal khalwa safla wal ibadata wal khalwa tiflana muska dafa teel dafa miin jaamu boroomam walla ibaadata miin tënku ci ndigali boroomam wal xalwata miin di wéet di jaamu boroomam tiflan depuis ba mu nekkee xale bu tuuti mu ne wa hakadan nu jabaaw mais ñi yàlla tànn ñépp ci seen enfance la seenam jub di feeñe ci jikko yu tedd yooyu aussi moom la màgge période jeunesse am yépp yonent bi ay jikko yu tedd la amee woon xam ngeen ni al amin lañ ko doon woowee mooy ku wóor bi jikko yu tedd yi mu siiwe woon moo waraloon sayyidatuna am embauché ko soxlawu ko woon pour yonent bi liggéeyal ko yonent bee ko gënoon a intéressé ko business am mais dafa am xale benn jeune bu nekk ci dëkk bi boo xam ne ni mu mel li jikko yu tedd yi ñuy wax ci moom yéem na ko moom sayyidatuna Aïcha mu am embauché ko afon Khadija shukran jazilan sayyidatuna Khadija embauché ko ba pare jël ben jaamam boo xam ni da koy accompagner di ko seetlu bu ñëwee ci kër di rendre compte Khadija ci ni jeune bi di dundee bi mu ba am confirmation ci ne jeune bi li wax ci mom mu ngi ci ci la ka takkam te na ko bu sayri nee na fara at xadijatu wa tuqaa wa zuhdu fiihi sajiyatun wa xayaau xadija gis ka gis dëddu àddina gi nekk ci moom ragal yàlla gi nekk ci moom njub gi nekk ci moom fadaatuhu ila zawaaji mu ooka ci mariage wa ma ahsana ma yablughul mun al askiyaaw mais su ma bëggoon a ci moom conférence bi day mujj nekk gàmm moo tax